waaw euh, imam Pape Gorgui gis nañ ne samedi bi weesu mhm. euh, njiitu réew mi taxawal li nga xam ne moom mooy gouvernement bees bi am nañ premier ministre amit euh, équipe gouvernementale mhm. njëkk ban jàngat nga am ci nouveau gouvernement bi waaw gannaaw bañ leen nuyoo sant leen ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xam ne si coobaram moo tax ñu fekk ko mhm. ndax bari nañu fu newoon fekkewuñu bari nañu fekk te taluñu ko kon de bu ñu yàlla mayee wér ñu fekke sant yàlla bu baax a baax di wax ne réew mi ñu ñoom ñoo ko bokk euh, jiital ku ñuy wax président Macky Sall mu jiite réew mi euh, réew mi ku ne gis na ni muy doxee ndax euh, ku ne mettiwul nag fu nekkul waaye képp ku fi neex xam nga ne réew mi metti na man nag am na lenn loo xam ne d'accord naa si mooy Amadou Ba bi mu jël def ko premier ministre d'accord naa si ndax Amadou Ba ku xam ne yaram mosuma dégg mu wax benn waxu ñàkk teggin mosuma dégg mu wane benn matadi mosuma gis it mu wax wax ju dëgër te foo ko fekk boo ko xoolee xam ne nit ku yaru la xam ne ku ñu yar la eh, am na xam-xamit yàlla may na ko teraanga am naa yaakaar si ne soxlawul alal réew mi am na si yaakaar ndax yàlla may na ko teraanga te yàgg na liggéey si nguur yàgg na taxawee ay poste yu bëree bëri kon xalaat naa ne liñ ko dénk mën na ko yore waaye mbir moom man mu nga xaw a joxasoo si man si tànnin bi. tànnin bi waaw. ndax xam nga booy tànn gouvernement da ngay tànn ay nit ñu jàng ay nit ñoo xam lu ñuy def ay nit ñoo xam ne ay homme d'état la ñuy doon. Mm-hmm. ñoo xam ne dañ mën taxawal lu taxaw. parce que fii dëkk bi toll nii te deux mille vingt quatre sorewul ñuy wax naan quinze mois mois sees ñu naan seize mm-hmm. nga war a taxawal loo xam ne li ëllëg bu ëllëgee bu ngeen fi jógee da ngeen di am way war nga ut nit ñi am maanaa war nga ut nit ñu am personnalité war nga ut nit ñu taxaw ñu dëgër ñoo xam ne am nañu xam-xam ay nitu nguur lañu ñoo xam ne mën nañ gérer waaye waaw da si manqué parce que xam naa si ñoo xam ne ñii ah, ku ne dégg na seen wax yu ñaaw si dëkk bi ku ne dégg na seen wax yu ñaaw parce que dañuy suivre ñu ngi si dëkk bi mm. lu fu ñuy wax xam nañ ko lu fu ñuy def dégg nañ ko waaw ah, dañ mën la wax nag jotee ñu fu ñuy waxe waaye am na ñoo xam ne ñii ay yàlla yàlla bale ay saagakat lañu ay waxkat yu wax yu ñaaw lañu ku mën noonu doo ko jël jiital ko parce que nit mën a jànga am xam-xam sax dafa bokkul nit dina mën a jàng te doo am xam-xam nit it dina boole ñaar yëpp waaye sooy jël da ngay jël koo xam ne kii respecté na nit ñi jox na cër ñi te APR ay kàngam ñu nga fa yoo xam ne war nañ mën a nekk ay ministre gérer réew mi am na si biir APR am na si biir PS. am na si biir AFP am na fenn ak fenn nga jël ñooñu liggéey loolu moo ah, mais nit doo jël rek ku neex nga jël ko def ko ministre loolu baaxul de vraiment am na si tànn fi yoo xam moom dëgg-dëgg ànd ma si tànn Amadou Ba nag moom ànd naa parce que Amadou Ba man mën na gérer premier ministre mën na ko gérer bu baax mais entourage bi ko wër mu tànn la kenn xamul lu mu doon ah, man daal vraiment loolu xaw na ma jaaxal. comme comme comme na bëri na xam nga kii yore sport. xam nga ñu ko changé moom mu wujjee coupe d'Afrique ba Kédé Mondiaye ah nga gis équipe nationale fu mu toll ak moom fu mu toll ak lu mën a xew si àddina deux mois moo des ñu dem coupe du monde deux mois nga changé ko indi fi keneen kooku war a commencé à zéro mais loolu mooy lan loolu kenn xamul lan la ak lu mën a xew si àddina même bu dee moom dafa am lu mu def mais bàyyi ko bi coupe du monde bi jàll deux mois moo des mu géré li mu géré mu jàll mais da ngay ñëw commencé à ki ngay indiwaat nan la mel ñun xamuñu est-ce que am na xam-xam bi xamuñu est-ce que mën na ko gérer xamuñu waaw loolu mooy li nga xam ne mooy ñu jaaxas réew mi <laughs> réew moom booy jiital nit da ngay jiital ko jàng am na fi ñu jàng am niveau am nañu fa am ay diplôme jàng ba ñoo xam ne ñii am nañu xam-xam booy jiital da ngay jiital borom xam-xam waaye doo bari doo bàyyi borom xam-xam yi jël ñi nga xam ne ay xulookat lañu ay saagakat lañu ay waxkatu lu ñaaw lañ si dëkk bi nga jël leen jiital leen mais pëcc xoolee indi. waaw man maa ngi tudd El Hadj Gorgui Ndir dëkk Yoff Laye. El Hadj Gorgui ñu fal euh, nguur bu euh, ne ñoo ko war euh, waaw gouvernement nañ ko gisee ni sant ci yàlla parce que c' est ça la démocratie président yoon moo ko may mu mën a tabb mën a tekku ne ah donc def na ay choix wam teg loo xam ne moom la ñuy xaar si ñoom. muy ne gouvernement d'attaque bi ñu wax mooy ñu jublu si soxlay sénégalais yi parce que sénégalais yi sonn nañu lu waay waxa di waxa di war a xam ne crise bi métti na te donc wax dëgg yàlla ñun li ñuy xaar rek mooy ku ñu génnee si guuta gi ñu ne loolu rek la xaar si gouvernement bi. ñu gis ay entrée ak ay sorties yoo xam ne euh, jur ay surprise euh, ak euh, loolu ala kulli xaal mënul ñàkk parce que président bi mën nañ ko jàppee comme coach football rek. moom mooy def ay choix am donc parce que mu 22 joueurs ñëpp xam nañ ne du jouer 11 joueurs mooy jouer donc moom mooy def choix am mu choisir sa équipe muy liggéey ñii la na ñoom la wóolu kon ñoom nañ xam li leen président di xaare xam li leen sénégalais yi surtout di xaare parce que sénégalais yi ñoo tànn président pour moom mu def choix donc choix bi mu ko def defalu ko boppam ñun la ko defal ñun les sénégal donc problème yi ñuy xaar si ñoom mooy ñu régler suñuy saafara saafara si wàllu dund gi lu wàllu jëm si cherté euh, dund gi ni mu demee ainsi de suite loolu rek la ñuy xaar si ñoom du leneen wax dëgg sëñ bi tur bi naka la. Euh, man Makhtar laa tudd Makhtar Gueye maa ngi dëkk Caajaay di liggéey yoo Makhtar euh, gis nañ nguur gu bees gi ñu samp ko samedi. Mhm. am nañ premier ministre bees amit euh, lu toll ci trente ne ñoo liggéey mhm. abord nan nga gisee formation boobu gouvernement ah wàllu gouvernement moom sama waa ji. Mhm. bari ma ci xam-xam mais kenn rek a ma muy Matar Ba. ministre des sports ngir yàlla na ko Macky Sall indiwaat te ki ñun sport moo ñu ñor quoi xam nga yeneen yi loolu wax dëgg ne yàlla xam nga ci dara quoi mais football laay dund football ak làmb gis nga lii stade la ngir yàlla Matar Ba daal mooy ñu ñor bu ñu sañoon ñu def mars ñaan président mu indiwaat ko waaw. non ndax da nga gis liggéeyam wax dëgg ne yaa Sénégal yëpp ba d'accord ne liggéey na euh, boo xoolee instant yii ñun dem nañ qualifier na coupe du monde. waa luñ luñ gënoon bëgg mooy mu jàppale ñu ñëw dem jëli coupe di moon loolu lañ soxla woon. mun a eggali lañ bëggoon wax. loolu ngeen oh. gis nañ tam ba ba tey euh, président de la république muy mel ne maanaam entraîneur football la rek. moom mooy hmm. xool. xanaa hmm. tey équipe bi nan lay doxee mu jël ay composant est que hmm. it moom peut-être am na ci ay réalité wala yoo xam ne xam na ko te yéen xamuñu ko. waaw nit gi moom moo xam ndaxte moom li li ci biir moom moo ko xam mooy président mais ñun nag liñ gis. xam nga ñun ay Sénégal lañ mais li gis mooy saay liggéey na te wax dëgg ne nag ku ñu indil ñun xamuñ ko sportivement Matar Ba lañ soxla ñun. waaw waaw huit ans huit yàgg na euh, na mais dafa liggéey waaw. waaw loolu lañ gis ñun. Souleymane Ba Jëf laay laa ñu gis nañ Sénégal am na nguur gu bees samedi la nañ premier ministre falit trente ministres yu mhm. war a ànd ak moom mhm. ci liggéey bi euh, d' abord ana na nga gisee formation nouveau gouvernement boobu waaw ban moom li ma si mën a wax mooy nouveau gouvernement bi moom la ko concerné parce que ñun dañ ko fay teg dañ ko fay teg pour mu yore ñu suñu réew nit ñi rek ñi ngi wax naan ni mu yoree neexu leen ak neex na leen am na ñu mu naqari àdduna moom moo demee noonu ñii dañ lay neex ñii duñ la neex wax dëgg yàlla taal mais peuple bi moom ñoo yor réew liñ wax ñoom ngay àndal luñ waxul rek moom boo ko mënee moytu ko moytu ko laaj lu weesu nag suñu premier ministre suñu ministre de sports moom mooy numéro un parce que kooku mooñ ñu gën a métti mooy lu ko kii waxee rek ñun ñëpp sport la ñuy dund sport rek moo ñu des fois si sport bi sax mbëtt day am sax ñu bàyyi li ñu doon def yëpp dem toog seetaan boo koy wàccee gàtt gàtt nga bàyyi ba coupe du monde bi romb jàll nga wàcceek ko kenn parce que yéegi wàcc ñoo ànd loolu kenn bañu ko mais nga bàyyi ba coupe du monde bi jàll nga wàccee ko coupe nga bàyyi ko bu jàllee bu amee résultat amu résultat nga wàccee ko parce que nit ki mi ngi liggéey. liggéey na ba ñëpp xam na ne ngi liggéey liggéey na même jour yi sax dañuy jour yi am problème mu problème mu kii kii kii kii kay club moom da koy lijjanti day lijjanti jour yi pour jour yi am seen club te seen xam nga loolu koy def rek bàyyi woo bàyyi woo tamit dara hmm? mais loolu noonu Macky Sall bu mu seet intérêt personnel am moom wala li si am moom mais na xool li peuple bi am ak li arrangé peuple bi mu koy def parce que moom li arrange peuple bi donc la war a def mu neex mais tant que deful loolu du sotti hmm. ñun daal ministre bi daal moo métti ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que ñeneen ñi sax boo xoolee gars yi waxuñu ci ah bon xanaa politiciens yi mais ñun ñun ñu jëm si wàllu sport parce que boo xoolee tamit làmb ji mi ngi dox basket bi mi ngi dox beach soccer bi mi ngi dox football Sénégal football moo ko gën a intéressé que affaire yeneen yi ak làmb te lépp te lépp mi ngi dox mais bu ñu ba jël coupe ba jël coupe d'Afrique teg ñiy wax war a dem jël ji coupe du monde nga ñëw dama suñu ba pare man waa waa ji mu teg sax man man maa neexu yaa ngi ko moom man dafa neexu ma première chose ma neexu ma te man donc ba sama parti ñu bëri tamit neexu leen man moom loolaa sax man maa ngi tudd Malick Diouf di liggéeyee fii Dakar plus yo mais maa ngi dëkk Kaolack habitant de Kaolack la merci. Moussa nan nga gisee kon euh, gouvernement bi gannaaw premier ministre amoon ba ak i huit ministres yoo xam ne war nañ ko ànd ak moom ci liggéey bi ah, dans l' ensemble alhamdulilah yàlla na liñ ci namm. jëmale ko si askan gi ah yal na yal askan bi gis waaye nag si suñu gisin bu gàtt rek wax dëgg am na yenn nomination yoo xam ne wax dëgg ñun si suñu gis-gis bu gàtt wax dëgg yennuwul maanaam ndax comme li demee ni sport waajim xaw ma Yankuba Diattara bi indi à la place de koo xam ne wax dëgg bi mu ñëwee gis nañ ne sport développé na Sénégal parce que mën nañ wax ne sport au niveau des département ministériels bu ko doon xayma fi mu toll nii amul amul benn secteur bu ko gënoon avancé kon daanaka loolu c'est benn faute boo xam ne c'est assez notoire la sénégalais yëpp remarqué nañ ko quant à mbirum à bi man damay lancer appel nomination bi ñu biñ ñu jagleel ñun waa Kaolack parce que Mariama Sarr bi mu bàyyi man suma ma sañoon wax dëgg mu changé ko ñu ne Mariama Sarr depuis du 2012 jusqu'à présent moo ngi si gouvernement bi moo ngi député moo ngi ministre puusul paasul si waa Kaolack yi waaw Kaolack dafa asphyxié wu respiré wu depuis gouvernance wu Macky Sall kon lu lu lu lu lu mun provoqué ne jusqu'à présent mënu mënuñ ñu koo remplacer la keneen au moins ñu mun a xool au moins mun a changer xool ba xool ndax Kaolack peut-être na gis boppam si yenn yeneen représentant gouvernement mais bëgg ñoo forcing euh, Maria Mariama Sall toutes les douze ans mais wax dëgg loolu war ko euh, bu en tant que jeune Euh, citoyen sénégalais wax dëgg ñu tax taxaw askan gi as tuuti liñ liñ si doon def ñu yokk seeni jéego ndax gis ngeen jeunesse bi la quasi totalité des jeunes wax dëgg ñoo ñoo ngi au chômage depuis que le corona euh, bi passé jusqu'à présent entreprise yi nanguwoo ñoo recruter ni ñu war a recruter te xam nga ne entreprise entreprise yi waroon yi waroon seconder gouvernement si emploi emploi employabilité gouvernement bi entreprise yi privée yi ñoo ñoo waroon seconder mais ñooñu buñ recruter mais population bi day dem au kaw looloo waral métiwaayu dëkk dëkk bi nii te loolu wax dëgg kim indi à la place pour mu war a seconder les petites e moyennes entreprises xaw ma Yankhoba Diattara xaw ki xaw ma Moustapha Diop xaw ma kooku Wile la moo ngi fi ay daanaka fi fi fi mu jógee puusul paasul léegi nga nga indi ko si ñoo xam ne wax dëgg moom moom moo wara a suqali économie réew mi ndax entreprise entreprise PME moom moo war a suqali réew mi bu ñu bëggee basé wu ne si entreprise étranger pour développer dañuy nax suñu bopp sénégalais sénégalais yi ñoom ñooy développer Sénégal mais pas étranger yi kon. parce que étranger yi seen intérêt kese lañ fi neyal kon nañ jàppale entreprise yu ndaw yi ñu mun a émerger réew mi man loolu laa si am loo xam ne dinaa ko si prôné. li ma sa xaar daal mooy ko su doxul ñu jëlee fi indi kuy dox waaw ku doxul ñu jëlee fi indi kuy dox parce que dara weesu si dëkk dara weesu si waaw képp koo xam ne kii tabba nañ la doxuloo dañ la fi jëlee indi kuy dox Ablaye Wade. Euh, maître Abdoulaye Wade suñu maam dafa doon wax ne moom équipe nationale la yore joueur bu doxul da lay génne sekk dox mu dugal ko loolu nag la Macky Sall war jëfandikoo fu mu toll nii joueur bu doxul ñu génne sekk dox ñu dugal la ndax match bi kat gagné lañ si bëgg bu bëggee ba fa bëgg gagné yow muy entraîneur bu toog Macky Sall mooy entraîneur mu ngi semence de su toog bu xoolee ku doxul na la génne sekk dox mu dugal ko kooku dox parce que dëkk fu mu toll nii dañ nekk si crise dañ nekk si ay métti métti. si ñëpp la métti kon nag luy doxal réew mi la ñu bëgg denrée yi cher na location yi cher na dund bi cher na xaalis jafe na xaalis moom ñenn rek ñoo ko yor te doo xam fi ñu ko jëlee waaw doo ñi dàq liggéey Sénégal ñi dàq liggéey ñoo gën a ñàkk ñi nga xam ne dañuy nelaw nelaw ba onze ñu jóg ñoo ñooy tal sol seen mbooy niin taal seen oto bu sedd guy waaw ñi koy laaxat ñoo am xaalis boobu taal seen oto yi sedd guy indi seen million teg waaye suñu kaas góorgóor yi xam ne fajar lañuy jóg di dax dax liggéey doo am dara réew mooy dox na yooyu nag moo for a joge ñii liggéey am ñii liggéey ñu xam ne liggéey waaye koo dàq lijjanti euh, dàq laa turiyande dàq laa def ñu njaaj mu lëpp xaalis réew moom noonu lay doxee te yow xam nga loolu man xam naa ko ñëpp xam nañ am na fi ay milliards yoo xam ne kenn xamul fan la jógee kenn xamul naka la tëddee te kenn du wax kenn du wax. boo waxee ñu ne nangam nangam boo waxee ñu jàppalti si kaso boo waxee ñu ne moo ne nii moo naa xam nga yooyu baaxul man daal Macky Sall ku ko bëgg la ku ko fonk laa parce que mooy suñu njiitu réew ñun ñoo ko wateel ñoo ko fal mais na xool entourage bu baax a baax tànneef bi li ma waxoon sànq na lay répété tànneef bu mu def si Amadou Ba man loolu d'accord naa si parce que Amadou Ba ku ne xam na ne liggéeykat la ku ne xam na ne jàmm jàmbaar la ku ne xam na ne xol bu yaatu la yor ku man teral nit la ku baax la ku baax la man teral nit kon kooku euh, soo ko dee boole da nga koy boole ñu mel ne moom ay homme d'état comme moom parce que Amadou Ba homme d'état la da nga koy waxee homme d'état comme moom ñu mën a liggéey waaye daal bi ñu ngi liggéey ñu ngi dem ku dox dañ la bàyyi nga fubal su bu doxul dañ koy génn sek kuy dox ñu dugal ko loolu mooy